Eh, di la jaajëfalaat bu baax a baax nag di am mbégte eh, waaye tamit di la jot leem nuyu ak ziar ci mboolem mbokki taalibe bi yëpp nag di sant bu baax ci soññee bi ak waxtaan yi ak xam-xam bu rafet bi di ñaan yàlla suñu borom defal la barke eh, ci barke murid bu mag ba bisimilah. Mm-hmm. sëñ Cheikh Fall Taïf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Mamour ñoo ngi lay nuyu. di la ziar di ziar sëñ Fallou Sile mi nga àndal waaye di jël nuyoo.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 maam Siraye Fall ak liggéeyam waaye rawatina nak diggante mak Cheikh Moustapha ak yoonu mudde rek rawatina nak ñu jup bis bu tedd bii di bisub bi nga xamni mm, ci la Cheikh Moustapha amon ndigalul Cheikhul Khadim bu dikkatee mako ci fatali ko ginnaaw bam ko digalee kon nuy sant bu baax baax ci teewaay bi di am mbégte lool lool di wax alaykum wa rahmatullah. Euh, Jerejef sëñ Cheikh Fall Taïf jërëjëf ci nuyo bu matale di la jaajëfal baax baax na ci liggéey bi ci saytu bi ak taxaway bi ak soññee bi tam sa su nek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 fii ci kër sëñ bu Mbàkke sëriñ bi sancoon ko tudde ko Daaru Rahmaan mag ñi doon ko wax Daaru Naar foofii la sëñ Moussa dala jàng mook mbokkam ma Cheikh Mouhamadal Fadal ak sëñ Omar Mbàkke Galongal sëriñ Tuubaa leen dalalal boppam di leen jàngal bañ àgg soortu Yaasin loolu foofu la lañ dale ginnaaw bu sëriñ bi dee dem Mbàkke Bari itam ci Jolof ndax sëriñ bi juróom-ñaari at la dëkk Touba la ko sanc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 foofu lañ nekk di fa baagante ba liñ làq ci xam foofu lañ ko làqe ba sëñ bi ñibb si 1902 fekk nañu sori lool ci xam waaye sëriñ bi itam yàggut ci réew mi bi muy delluwaat tubaab yi yóbbu ko Mauritanie ba mu demee ba toog da leen da leen a jël si yóbbu leen leen a laaj maam Thierno mu yóbbu ñu siyaare ji sëñ bi téye leen la leen tërbiya moo tax mu ne Bàmbaa nga leen tërbiya fii Sarsara mhm. ak ki jarraar ya ni waalan saara ñoom dañoo dañoo moritu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 ni len li tambale ci arafu joro ba ci arafu ci ca ci ca feggu càmmoñ wa arafu ci nee ci seen beut bi tege gaaw ge mokal ak bañ ge fatte mako warlo motax moo seen dimension xam-xam tabarakallah yemina amna yi tam ab tol bu ndaw bu len seigne bi dagalon wax len ni len ni dama bëgg ngeen ci xey ndax damay bañ ngeen ñew fi ci rank gi ñibbiwaat wat ci rewma yam ak ñoo ngeen fa bayiwon bis bu ngeen fa xey defal na len ko muy ayu bis lolé itam tawfiq la jo xamanteni ni sun borom defal na motax tax sëñ Moussa daan wax ni lepp lu way liggey ci señ bi ba xeex bang koy liggey mak yaw ko ànd ma ëppale la nag njuréel gi <laughs> na lolé itam di di sens bo xamanteni ni sun borom bi yalla dogalé señ bi ñu nekk ak mom fofa nga xamni fofa da nañ fa tak ay néeg señ bi mboolem liggéey yi señ bi don joxe yépp ñok taalibe ko don and mhm. fa lañ jógee bi sëñ bi jógee gànnaar ñëw ceyin jolof it dañoo ànd ak sëñ bi ñëw ceyin jolof di laxasaayu di liggéey ni ko taalibe yëpp defee sëñ bee leen tërbiyal boppam hmm. kenn rox ko ci ñoom ñaar moo leen sëñ Fallu xorom mi daf daan wax ni dama teel a xëy ci tool bi ba pare guddee wàcc ndax yàlla daa dogal mu gudd fan hmm. moo tax mu ne damaa teel a xëy ndax sëñ bi am jot di tàmbali yëf yi hmm. fi fekk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 maanaam moy jikko yi Cheikhul Khadim rek ndax ginnaaw Cheikhul Khadim moko ko tarbiya te it mën nga wax ne moo ko jàngal lu bari waaye ci mom la kon dafa melni ni nit ki mo ki ngay tarbiya li nekk ci yow rek ngay def ci moom kon ay jikko mom seigne Ahmadou waxna ci lu bari bari mana don ab jaamu yàlla waye don ko meuna muñ waye don ko waxit nam ko di wax ni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 ca loola sëñ Ceerno Mbàkke sëñ Ceerno Mbàkke Gelongal nee na mook sëñ Maamoor sëñ Fallu ak kenn ci doom njabaru Cheikh Moustapha dama damaa xamante ne comme ca doonati nee na ñoom ñett ñooñu ñoo àndoon dem dindi ziyaare ji sëñ Fallu ci bëccëg nee na ba jàggee sëñ Fallu ne leen da ngeen di yendoo nee na ba ñu yendoo ba waxtu xewul jot nee na ay ba boole xewul yu bari ñëw fa nee na sëñ Fallu leen xool leen bu leen ci sopp ngeen xewlu ci waaye daal ni ndax ceebub sab néew ci ñu ne ko axa kay mu ni leen maa defar loon nañ nañ mako jox wax nañ bam ci nekk bi ak sax mu ni kaay leen daal kat dama len bëgg am lu ma len bëgg netali moy li seigne ahmadou netali ma bañ ko def ba liggey ba jeex ba liggey ba jeex seigne bi da xey ben bis wut pot ap pot def ci nga bub ciéré nee kaso kaasoo ko ndoxom bisap nee bañ ba bam jullee ci mu ba wàññi dal ni laaj pot bañ jox ko mu duggal ci loxom genné sex waye dal ni kay len ñu bokku ndab li ndax bokku gi daa dafa am luma dafa am luma len ci fagul daa ni dama bëgg tay ji bu ngeen fi joggé ci liggéey bi ngeen mo doon liggéeyal sell gi mu sell ak nangu gu ma ko nangu tay ji bokku gi ñi bokku yeen bu ngeen fi joggé ku ngeen bokkal ñu jéggal ko koko kum bokkal ñu jéggal ko koko kum bokkal ñu jéggal ko seigne cheikh Mbacke nee seigne fallu mo moo leen ko wax moom moo mom seigne mam mom seigne Massamba ak doomi Cheikh Moustapha kon lol la tekki moy ak tarbiya tarbiya nak moy indi jikko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 ak bi wetoon na ci. waaye waaye nak jikko yu rafet ñam amon lolé mo taxon mom moom mu ni xëy na euh, mbir mbir mi doon ci dara. ca suñu waji mam Sëriñ Fall daana wax ci wax na ci mom ni neena mam mam señ cheikh soufa si si amoon suufaa dafa mas a ñëw nee na fa ba nuyu ko ba nopi neena mu ni mom dal señ baba dal jaxal nako señ baba dal jaxal nako dal ko daal bi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 ku bëgg mucc ku bëgg a yalla yàlla day mm-hmm. sax ci jàng alquran mm-hmm. ku bëgg mucc ci mbugalum -hmm. nay bari salatu ala nabi mm-hmm. ku bëgg ay àndandoo nay aw ci yoon da nga dab nit mba nit dab la da ni leen ñaar rek ka fi nek nak aw yoon aku ñal ku néewut ci yoon wa ya nga ci ñal wa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 su ma xëyee xuus biir Touba namante koog sama dëkk ba door mhm. dem waaye ne bi muy ñëw ba kàddu bàlloo ji ne eh, lisaanul xaal wax ak moom mhm. eh, suñ borom ne ko sa bët bu tege ci garabi Touba lu mal la mayoon danaa ko nangu mu mhm. eh, wax sëñ bu Buso ni ko dégg nga sama borom li mu waxa ne sëñ bu Buso ni ko ah nag de bu Buso de ak gut foofu nag mu ni ko sama borom nee na kër daam Abdourahmane lay fanaane wax gi mu waxoon sëñ bu Buso ni ko sa kër lay fanaan nag mu ni ko kon nañ yóbbu bagage yi fanaan sa kër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 léeg-léeg dañuy soxla sëñ bi même tubaab yi itam am na ay maslaa yu mu doxale seen diggante yoo xamante ne ni ñoom buñ ko soxlaatee ci moom la ñuy ñëw waaye duñ duñ àgg ci sëñ bi loolu itam tax na tubaab yi gannaaw sëñ bi ñu seddu ko ab cër ndax ne nañ tax na suñ diggante ak sëñ bi neex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 moko ko bi ni ko fi nga toll ku fi musa a toll rëpptal naw fasam te téewu ko xalang hmm? fi yow rek ya fi musa a karawasi saw fas seigne bi ni Cheikh gees Cheikh ant ni ko nañ ma mayal geewal bi hmm. <laughs> dooro dug ci biir loolu <laughs> xati ngor ak njambar go hmm. xamanteni ni te booba jëm na ak mak ndax ak coono yu bari nga gis ni itam ci jamono yoyu digante 12 jap 13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 ndax na fi digënté bo xamanteni 914 maam Thierno la lo fi juma ji nek kër la ak këru dar Xudoos gi ne ko sof sa la wété won kaw na fété sof teñ tapat ko tàppaatub seng am nañ ko saket sàkketu seng mu yabal fi seigne Moussa bi seigne Moussa diké la wat aynu rahma gas fi aynu rida muy den bi nga xamanteni ni mo nek fi ci wétu ko seigne ahmadou mokhtar bobo ñoo amna itam ten bo xamanteni mi ngi ko gas fi marché bi nek ci 1918 la fi seigne Moussa ten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 sëñ Modou la sëñ bi woo ni ko nanga ko lijjanti ba mu àgg ca kër ga te daraam bu mu ca dem nga faye ko loola loolu la wax ni ko nga faye ko ko loola mooy keroog bi yàlla dogalee sëñ Modou gane àdduna sëñ ma Massamba Fati moom moo ko dugal ci nopp sëñ bi xonn ndooy la njabal ma maam Thierno yónni ndax booba sëñ baa ngi ci xalwa booba mi ngi wër pàkkub Tuubaa gis na ko mu ñëw bi mu ñëwee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 ñu dab soxna Faati Sàmba mu ñëw euh, sëñ bi ni ko waxal li nga waxaatoon mu ni ko sama néeg ba day senn te bu jant fenkee bu ma nee ci biir néeg ba ñépp may senn sëñ bi sëñ bi ni gees ni Modou Moussa ni ko Modou Moussa wàccoo na ma ak yéen wàccoo leen ak seen bokk yi ni ko Modou Moussa am na néeg yoo xam ne ku ca gën àdduna tumuranke war na caa jeex waaw te defal naa leen dex goo xamante ni bu ngeen doon tànk ba àdduna tukki du ngeen daj kimij ga waaw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 dafa mel ni moom boobu foofa la ko fekk. nga xam ne maanaam fa la ko yëgee. Mm-hmm. waaye waxuma sax diggante meeg eh, ci noonu rek. Mm-hmm. waaye comme ni suñu amadou waxee maanaa bari na ay rataxal. yoo xam ne maanaam def na ko ci diggante tubaab bi. Mm-hmm. ba yu bare baree bari daanañ ko ko teg. nga xam ne mujj nañ maanaam Cheikh Moustapha maslaa gu maslaa ak ñoom. tax na léegi yu yu mel noonu yu mel noonu ñu di ko wàññi. maanaam la ko ko la ko ko may. mooy relation yoo xam ne bii.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 ba ñu dem ba ba ni ñu ko waxee ba nga xam ne dem na nag ba ci ay jamono mu mujj nag loolu nag moom ci la a leer maanaam ci la si ci ci cere mbir ma cere mbir ma gën a leere ndax yaakaar naa dem nga xam naa incha allah suñu am ci ci ci ci fan yu mujj yi waaye daal ci tënk xam naa digganteem ak sëñ moom comme loolu si ñu amadu wax rek relation yi xam naa rek lañ ci mën a dolli sëñ Mamour incha allah. jërëjëf sëñ Cheikh Fall Taïf jërëjëf ci leeral gi Euh, yaa ngi xamal nañu kon ñaaxeen ak ak ak xosnul mahab dafay mel ne euh, dëkk la yoo xamante ne bii ci nekku sëriñ bi Cheikh Moussa amoon na fa ay daara ñaaxeen sax ci taarix wax nañ ne bokk na ci fam jaar bi muy ñëw njaareem bi nga xam ne sëriñ bi dem na euh, sëñ Ahmadou Ndiaye ñu dikk rek nag ci wàccaayu sëñ bi wàccaayu yi dafa mel ne fekk fa Cheikh Mouhamadou Moustapha jërëjëf sëñ Mamour mu mel ne ci nekku sëñ bi la sañ ci xosnul mahab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 ma fi suratil qadr te dafa jital sax ak tuub tubtu ilayka tawbata abdin salim bolé ko denkat ko bopam nak tan ni ko buma baye ken nak ma teyel sa bop cialo ko seigne touba don tontu di ko yo wax ni ko yoolub addiya ko seigne wax ni ko boo dana dana bari lu tuti won dana barkel lu new diko ko de dee joxe addiya saxtu la lek ci bir bammel dana yok wërsëg dana guddal awfan fan ba ci mujjug letter ba sax seigne bi dana ko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 képp koo xamante ni masàmba doyu la te gaal gi doy la la nga am nga def ko ci gaal gi ni ko wol ma euh, afia mu dem wooyi sëñ afia sëñ bi ni ko jàkka jàngoog seen jàkkaangoog jiite ji ni ko wol ma ma jëmb silla woy ma sëñ ma jëmb mu ni ko da ngeen doon wax ni da ngeen bëgg ab tool àllar bo xam da ngeen koy wut ca mbodaay dama ci bayal kamil bobu moy seen tool àll seenu kamil kaamil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 suuratu baqara tambale ci alif lam mim dalikal kitab ba ci hudan lil mutaqin. sëñ bi ni ko taxawal mu taxaw sëñ bi ni ko melokanu julli a lolu ku bëgg xam sa julit fan la tollu da ngay ñel benu bakkar ba ci nga xol yow fofi fo ci tollu lo gën dund aaya ba ya nga xamni ya nga ci joxoñ ba señ bi waxon lo gën wote ak aaya ba xamni ya nga koy gën sori ndax melokanu julit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 daal di mm, wax sëñ Mate Lamine ni ko ci bismillah mu continuer jàng sawaa'un alayhim a ansartum am lam tusirhum laa yu'minuuna ba aaya bi jeex sëñ bi ko taxawal mu taxaw sëñ bi ni ko ab yéefar a ngoog melokaan yéefar a ngoog ba tey ku bëgg a xam loo wuuteeg ñooña boo jàngee aaya booba xool ci sa bopp parce que nit moo gën a xam boppam balil insaanu ala nafsihi basira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 ñetti ay yoy yi cël tëje nga xamni waxna ab julit nu mi mel waxna ci ab yefeur nu mi mel waxna ci ab nafiq nu mi mel ni ab julit tor tor melokanu tor tor la yor da wex tal ab yefeur melokanu nubin la yor da ñul kuk dara lu wax ni ci mom ab nafiq melokanu nat la yor weexut ñuulut waaw muzabzabina bayna zalika la ilaha haulaay wala ilaha illa mënoo ko malik ñom dem dal da ngay def ni fa la bok daa di loola mooy dénkaane wam sa sin suñ mat Lamin Jóob yaxal na ko ci gu yaatu ba mu fatoo nag génnaatu kenn tegaatu ko ci bët ci ban bis samedi boobu yi mhm. julli takkusaan julli ji timis julli gee mhm. dimanche julli jiwut wenn waxtu mhm. samedi boobee daal ba fatu jotee sëñ Matar Sylla moo ko daan taalal làmp bi ñew na bëgg taal lamp bi sëñ bi ni ko ana koku mu ni ko mëna matar mataar si la sëñ bi ni ko demal bañ soxlo ko mu dem sëñ bi fatu dimanche julli ci wut suba julli ci wut tisbar julli ci wut takkusaan julli ci wut timis julli ci wut ge dimanche ci suba sëñ matar si la ñew na kala yoone ci kees gi waye déggul ko wax dara te te te lolu ñu ko doon doora xam ci mom ñu ko doon doora xam ci mom wala gëj na ko def mhm. dimanche ñew na kala yoon nag déggul dara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 te buntu ba nañ ko tak bu fa kenn jaar nek buntu bobé mom ci lay jaar buy dem Touba lolu motax kérok bi nga xamanteni ni dimanche jooj nga xamanteni ni ci la tejo ñewut dimanche joojee ci suba ci fajar seigne Moussa fam nek ci Touba kayal bam yeen bi mi tok mag ñi wër ko mu ni di wax ak ñom bam yag mu ni bi mu xexet pelian bi jall ci tokor ba seigne Mor jandam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 sëñ Mor ni ko loolu de doy na kéemaan mu ni ko waa baax na ñu ànd ñëwaat tok mu yeewi mag ña ni leen man ngeen a dellu ca yittee te ngeen sax ci jaamu yàlla te mooy tundiku lépp lu di tere balaa yàgg danaa fi ñëwaat ànd ak mag ña ñëw Touba. bi mu ñëwee Touba daa dugg ci biir kër gi booba këram mi ngi ci sura ci kër sëñ Matar Bintaloo foofu njabootu sëñ Matar Bintaloo gi dëkke foofu la këram ne woon bi mu ñëwee itam daa dugg ci biir këram nes kii si jël otoom dem usnuma ab tindoo di tindoo di bàyyi sëñ Njaay Anta nee na ma keroog bi sëñ Moussa di ñëw maa ngi koy jàkkaarloo moom di ko gis nee ma garam boobu mbaxal la sol ak maraakiis yu pour ak kaal ak sàmba sembe mhm. nee na daal di dugg ci biir néegam nes kii si mu génnaat bi mu génnee jaar Nayde mhm. Nayde bokk na ci dëkk yi mu sanc eh, bi fi sëñ bi nekk ah, waaw mhm. jaar Nayde jaar Kellal ci Amadou Ma Xureja Amadou Ma Xureja moo jur soxna Faat mi mu jur sëñ Cheikh mu ko laajee ñu ne ko daa dem tool ñu ne ko ndax ñu wooye ko du ko jar daal di eh,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 sëñ Matar nak da fekk mom mu xam ci dara ndax mom bi sëñ bi gatté ci neeg bobé yeddu nako mom sax ma ngay nettali ni ma ngi ragal suñu borom mbugal ma ci yeddu googu mako yeddu mam yeddu googu ma ko doon yeddu mhm. ay yeddu ko ma gis ko motax mo xamna ci lu wor mat set motax mhm. bañ timis ba paré nak sëñ Moussa laaj fan la mujjé yëngu ñu ko kessu fat Cheikh fatako Tàkko mhm. mu door a yónnee ci sëñ Cheikh Fat Tàkko dem ci biir kër ci buntub sëñ mm-hmm. bi nga xam ne sëñ Massamba ci la daan jaar di tàbbi ci biir kër ga mm-hmm. moom la jaare ndax bunt boobu daa féetewoon na kër sëñ Massamba mm-hmm. am bunt bu seetee kër maam Cheikh Anta nga xam Cheikh Anta ak sëñ bu sëñ Paate Amar da doon mag moo xamante nii daa dëkkoon ak sëñ bi daf ko daan soxla léeg-léeg bu ko sëñ bi woo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 Modou Mbay buntu kër mi sëñ Modou Matar Mbay hmm. mom ci buntu penku bi moko yoron ko defee ñaan buntu Modou Mbay buntu kër hmm. buntu yoy yep ay adress la woon ndax léeg-léeg bi mbolo sox ko mun leen dem leen ci buntu sangam ngeen xaar mo lo lo tax sëñ bi nak bi mi dugg sëñ Modou ci buntu sëñ Massamba bobu la jaare and hmm. ak sëñ Abdoulaye Diop lewna ak sëñ Matar Silla ak sëñ Cheikh Khary ak sëñ Mat Lamine Diop Dagana ñom la ànd waaw moy nijaay sëñ Basiru tabbi ci bir wo sëñ Cheikh fatakou jël caabi mu jox leen ko joxañ leen ko ndax booba sañ nañ ko ndax ay mag lañ mhm. te liñ gisit miinuñu ko mhm. ñu ñaan ñu saytoo ba gis ni suñ borom ñëw naa ko dogalam mhm. sëñ Moussa nag keroog la xam ni e, lañ ko doon dénk agsi na mooy naa dem tuubaate te bu xat damm waaw nga xam ni léegi la sëñ bi waxoon ni leen liggéey bi dem Touba ci des su ma demee Touba lu ngeen tàmbaleeti danaa ko àggale waaye su ngeen yaafoosee ba dem ma dana mel ni demaluma leen woon fenn booba nag la def yitteem eh, keroog bi mu tiimee sëñ mu wax mooy akadis gor aka mën a muñ aka a muñ akadis gor nga a roy ci sëñ Touba mooy nangoo muñ te doon as nag la ko sëñ bi waxoon woolu sëñ Balla Coro mi nga xamante ni mooy chef du village suñu jaarim ndax boobu sëñ bi dëkk bi lotissé nañ ko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 kon xamone na ni ñi seen pexé ngi ci ndax xamna ñi biñu and ak sëñ bi fu sëñ bi ne ay capital mouridisme mhm. kon bu fi joggé fuñ ko def ay capital mouridisme te yoon yu mënta ñak capital te fanen fuñ ko samp fu du Touba fofu yëllu mhm. motax tax bi ne ilahi maskani Touba abat misla smiha bi jahi xayri man abat dik gog yi mu dik Touba nak moo may Touba valeur bi mu am mhm. sëñ Baara bin na ci di ndokkel suufu Touba ci gan gog yi mu am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 tubaab yi ak naar libaane yi njaareem dafa commencé bekkoor jafe-jafe commencé ab taxi yi leen teg mënatuñ ko fay naar libaane yi dañoo daje ñëw ci sëñ Moussa ne ko léegi sëñ Tuubaa hmm. hmm. sama bakkan bi du ko fekk sëñ bi daal déetu ma ran nangu mu randu jëm fenn hmm.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 waaye nak te bobo Touba it taxul mu demee ni xam nga bobo it daanaka buñ diisoo won rek señ man na dess njaarim te su bobo it kon gis nga ni mi demé waye ndekete lola señ bi moy programme señ bi la waye Cheikh Moussa taxaw ci taxaway bu am solo waaw jërëjëf sëñ Mamour yakar na mom danaka luñu nga wax rek liñ ci jangata du mana sori lol xamna mhm. liñ ci jang rek moy jàmbaru Cheikh Moustapha waye nak ak wajuñ ko wajalon ndax xam nga li ñaan Cheikh Moussa dañ ko préparer ndax bo xolé ca bi mu dem ak señ bi bim nekké nekkee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 waaye nga am ak dal bu baax a baax a baax a baax ndax ndax mel na ne wax nañ ni jotaay ba fi ne am na ñooñ ci biir am ñooñ fi ne bañ ko commencé yëg am na ñooñ xëy na xawoon nañoo bëgg commencé soppiku waaye da leen a woo xamal leen kat bu ngeen defee nii yéen ñi nga xam ne tey tey yéen waroon a taxaw bu fekkee néew ma fi yéen a war a tax kon ñaan ñi sa moom buñu jégee nu ñuy def ku mu wax loolu rek nga dalee amaat ak tekk ak tey léegi kon loola loola lañ ciy dégg mooy waajal lañ ko wàccaay yoo xam te ne bii xam na ne yan bit ci moom lay war a jëm si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 am ci cheikh si ñu bëgg dem commanda bi ñeen leen ñepp la xam ku dem bu góor kilifa gi dikkee dana ko wax ñu togaat nes ki ci gouverneur général dal di ñëw bi mu ñëwee tam dafa wax ni chef de canton yi nañ dem ci denis ba ñu réunion ci and ak yeli manel fall seexi murid yëpp mun leen légui dem leen ci penc ma pencum kër gu mag ngeen xaar ma fa ma ngi ñëw ñoom it ñu dawalo ñëw ñee dem ndaje ji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 taxaw seigne Moussa lolou seigne Modou lu ko won bopam ndax man naa am sëñ Modou bu imposé won bopam yoon wi mën naa xar. waaw waaw man na xar. lolou sax kenn mënu ko wax déedéet déedéet mu topp ak déedéet am lu ngeen am jox leen sëñ Moussa daan wax ak sax mhm. ab serigne munu ko jangale mhm. ndax ak serigne neena moy mooy leen ñëpp ma te loolu gor du ko wax morom ja <laughs> loolu gor du ko wax morom déedéet waaw kay mhm. motax niñ doon topé sëriñ bi bari na ci lo xam ni Cheikh ibrahim ko jangale du lu ko sëñ bi sade waaye moo xam ni jëmm ji lii ñuy def jaaduwut ci moom lii moo jaadu mu aw ca yoon wa te fi mu doon ni taalibe bi boo gis mu ñee morom ja lam la gën a niroo Cheikh Ibra nga ko ñëwee moo tax mu doon nit koo xamante ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax ki mu taqool la tax su léeg-léeg damay wax gars yi ci waxi wolof ni leen maam xaju président de la république boo ko bëggee atte ci xajee ca des da nga jóom waaw ndax ki ko teg loxo bokkut ak ko teg yee loxo ndax xaju président fi mu ne bis bi set mu lekk ndawal goo xamee mi imam bay xëy ci jàkka ja di ca gont mënu koo am mënu koo am déedéet <laughs> te taqoogam taqoog buur a tax <laughs> moo tax kii itam jege gi mu jege buur moo tax wàccuwaay bi muy bi muy am neexuta neexuta xayma fi ko nit ñi natt dafa néewut uhuh. déedéet Cheikh Ibrahima doo ko xool ci téere boo ko xool ci téere doo dem waaw te eh, eh, yàlla faalun li ma yurid la mm-hmm. waaw yàlla da amul limite mm-hmm. wala yuxituuna bi shay'in min ilmihi mënuñu koo pekk mm-hmm. moo tax ñuy wax ñëpp dañoo xamul yàlla rek moo tax umpale guñ umpale suñ borom moo tax léeg-léeg ñuy jeex yi jaaxa ci mbirum seer waay dimat mooy wala yuxituuna bi shay'in min ilmihi waaw te coobareem rek lay jëfe bi nga xamante ne nii loolu loolu loolu loolu am na ca des mooy yoon yoonal sëñ bi sëñ bi ab jullit la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 bi nga xamante ni cheikh mour moussa war naa toog ci jotaay bi waaw feeñ nañ ci bu baax a baax mm-hmm. feeñ nañ ci ndax am na kàddu yu jëkk a xamante ni ni mm-hmm. eh, sëñ mandumbe ba mu jógee dani mandumbe lànk na lànkaale ibra fall hmm? <laughs> waaw sëñ balla fall itam loolu la wax balla fall moom lànk na lànkaale mandumbe ak ibra fall kon <laughs> mm-hmm. xam ni ay xalaat yu juyoot doon na fa génn nga gis ni itam ci taxawaay booba masurung seel ñaan taalibeb si ibra waaw moom la muritu mm-hmm. moo ko yar tarbiya ko mm-hmm. moo ko boole sëñ Mourou Moussa te ma ma solo boo jàngee histoire am na xam ne mun woon a ñàkk mm-hmm. ci Cheikh Moussa waaw ndax fi mu ko féete ak rôle bi nga xamante ne ni moom la joué ci diggam sëñ Mourou rawatina rek bi ñuy yoonal sëñ bi waaw ndax bi ñu yoonal ba njëkkee tër lañ tër mënta jàll te bokk yi ñoo ko tër ñu ne kon nañ ci dugalu jàmbur boo xam ne dafa nëtër yoonam du ci nekk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 xëy ñaneen ñi ci dess ñuy doon seeni am seeni talibi yi dem ci garba baak ñew di yanu ñu leen di fay ñoo ñoo cay rax mm-hmm. ak ñaneen ku melni Cheikh ibrahim xamni xam na am ouverture mm-hmm. ci barab yu bare bare yo xamanteni ni amon nako da na fa fagu dara di fa jóge mm-hmm. ak taalibe yo xamni ne nañu yew ba nek ci capital régionaux yi di fa yëngu lañ cey dajale di ko yët te mo amu jenn yitte judul dul yitte sëñ Tuubaa rek mo yitte seigne bi dong mo doon yitte lepp lu mu daan dajale it moy fa fagu ndigal bañ ndigal bett ko waaw parce que yu ndigal dikkee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 kon Cheikh Ibrahima moom Modou waaw góore Modou Moustapha Fall sama doom waaw booba moom it am xelam ma ngay dal ci rafet njot ci ni bu bu bu wanee yëf yi gannaaw kim fi bàyyi dana dana mën a ànd ak doomi si Bàmba ji waaw daana def nii loxo yi bu ko defaan rek yëg na eh, eh, waaw Moustapha Fall jërëjëf loo lool loolu loolu lu am solo la yooyu yëpp ay ay taxawaay la yoo xamante ni nii Cheikh mhm. ko taxaw ci sëñ Modou boole ko itam njabootam gépp mu mhm. xéer leen ci mhm. sëñ Modou mhm. sëñ Mortal Fall def na cay way yu am solo yoo xamante ni ba mu koy dem ne waaw góore waay saa waaj mat buur ma dub sëriñ hmm? waaw yor si ay ak canguk sayid yi xam ni kii dund na sëñ Tuubaa xam na kii sëñ Moussa mi wax lu mu représenté ndax hmm. loolu la ko tàmbalee waaw góore waay saa waaj hmm. sëñ Moussa la doon wax mu ni waaw góore waay saa waaj mat buur ma dub sëriñ waaw yor taalibeeg Cheikh Ibra ga ak canguk sayid yi maam taalibeeg Cheikh Ibra Fall la suñ Moussa boole ak canguk suñ Tuubaa gi te ñaar yooyu benn benn bu ci ne doy na ñaar yëpp daje fi moom mm-hmm. mu téye ko nga xam ni mat na buur boo ko nattee ca buur yi mat na ko mm-hmm. bu dee sëriñ sa itam boo ko ca nattee mat na ko mm-hmm. bu dee sëriñ bi taalib canguk suñ Tuubaa gi la yor ak taalibeeg Cheikh Ibra Fall gi noonu la ko doon toppee di xool mag ñi xam ne dañoo dund suñ kenn ku ci nekk lañ la doon tàggee nga xamante ni mooy symbole bi gën a ràññu ko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 am di wax rek différence bi sëñ touba am ak Cheikh Ibra mhm. kay ci giri du sëlmal ci julli mhm. ki du julli mhm. waye tax seen ngeen mu ben la yalla rek lañ bëgg ci <laughs> lañ jëm <laughs> ki yalla rek dong la ànd ak ci ca ben nga ci mbak Kajoor ba mu àndoon rek top na tanku bi yàlla ba mu socc biir la ko wax amaatul leneen lu soxla won ci touba Tuubaa waaw ndax sëñ bi tam daan wax ni lepp lo xam ab say say am na ko am ko du ngoro lepp lo xam ab say say man nako am am ko du ngoro te ab say saay ngërëmal yàlla kep la mën tam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 ak sëñ Cheikh Fall Taïf ngir ñu fas waxtane Cheikh Moudou Moussa waaye waxtane itam ñambar gi nga xamni ni def nako ci liggéeyub sëriñ bi waye taxaw gi nga xamni itam Cheikh mou Cheikh Ibrahima Fall and nako ko moom ci nga xamni ni sëñ bi jóge na itam ci mom lañ tey kaddu gi loy tàggatoo sëñ waaw waaw ñu tàggatoo rek moy li lepp dañ ko def ngir waajal bis boobu bi nga xamni la sëñ Touba jógee njaareem mhm. fanan ci Touba gi mhm. te deetu ferando jëm fenn mhm. bis boobu bi nag la sëñ Moussa waxon ni jubo nak sa borom ci képp ku fi fanan ci jang alcorane jang xasida istighfar salatu ala nabi borom xam-xam yi laa biire ñu xamul ñu waam la dénk wërsëg dimbali ñëw diwal suñu borom dana la jéggal say bàkkaar daan ni ko yor yaari mbubb na la jaral jaay menn ma mhm. ku am loo may jox te den rek taalibe bëgg a ñëw te amul lu paase jox ko ngeen paas ànd ñëw mhm. ni len yitte ju jar baña fanan ci si tuuba guddi asirinu sun borom sak roy la bëgg mu fanan ci soxlo mu alal ji ngeen may jox loli moy bis bobu ñu jëm di ñaar fukki guddi tam xarit guddi gi lañuy ñuy ñaar fukki guddi moy guddi gi nga xamanteni ni mom la bi fanaanse guddi gogi la wax ni ñoñi mu andalon nga xamanteni ñoko ñoo bi mi ñew sa yu su bi del da ñu ci bok fanan ak ñom ko fi fanan ak ñom sun borom jéggal say bakkar té lolu ko xam sëñ touba ak limu daj diggam ak borom xamni ni warna mëna naa bu baax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 mësesu ko gis gandi la gana si ndax ni nga xamone kat moy bu la gan gana si mm. da ngay tak ab sareet wala ab auto waaye tak ay jëm ay dimu ñetti góor yalla mm-hmm. ñu mun leen dox leen nee gis ñu dox mm-hmm. mu gis ci fekk sax ñoom dañu xane fas fas lañu bëggono a mu ñu leen do mis do mis bamba ji kenn ko rek ci aw fas mo ñetti talibé wax leen dox leen ma gis waaw kon xam nga loola lu am solo la ci mm-hmm. jotaay bi mu doon wax ci ndiarim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 yaakaar naa wax na sax ba ci biir sax di wax ne bu boobaa na ko malaa kay diw ak diw nañ ko teewe waaye ba muy ñaanit sax ci am na juróomi góor yàlla ñu ñum ñaan ñum ñaan seen barke bis boobu nekk nekk bis bi gën ay ay bisam kon loolu yaakaar naa ni ko sëñ bi waxee kon ni ci Cheikh Moustapha it li mu ci wax nii maanaa da koo amee ci ndigal Cheikhul Khadim ca moom it moom daa doon yonte bi maa du waxee ba kanam li wax ni maanaam maanaam ku fi fanaan ca fanaan ni nga fi war a fanaane soo xëyee da nga mel da nga mel ni bis ba nga gane woon jamono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 Eh, tay itam niko ko Ahmadou Ndiaye ngiraan waxee léegi mu ko doon dund ak mam Cheikh Ibrahima Fall babu Baabul dina bi ya dogale itam ku bax ci jóge fi mam Cheikh wéel liggéey bu tedd boobu ci Cheikh Moussa gunge ko ñetti at eh, Cheikh Moudou fann nee na fekk na ñetti yoon yo xamni ne sëñ Moudou Moussa ñëw na fi Cheikh Ibra benn bi nand la neena benn bi ties la bu mujj bi ndiarim la sëñ eh, Cheikh Fall tay wax nako ko léegi mam Cheikh dafa daali wax na nañ ko wutal ay warukaay jëleen ko Cheikh Moudou sa bi ñu takkee fas Cheikh Moudou Fatma nee neena Cheikh rofal Fall bu ñu ci da mel ni ku tit na doom domi sëñ bamba ñu ngi tekku ci fasim bajantu daan waxuma ko ana mu jom ngeen mëna gess mëna ana dawdo ngom na wat len carotte ba indi ñu wat ko mu tan ko tak ñaar ñi ñu jël cheikh muru saa keroog bi ko sëñ muru saa bi fi dafa yému na xanaa bàyyi Cheikh Ibrahima def ci ñu wax mëna ne xamul lu mu doon nga xamne ko dalal nako yeex na yegsi ci mom ndax waajal addi ju ko doon nuyo daawul gis domi sëñ touba lu day waajal addiya ngeen nuyo ko ba pare do ra waxtaan ak mom loolu la cheikh Faal daan def bu mujju bi tam ñaarim la bobit it sëñ Muru na fa sëñ Fallu ñew fa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 di leen jox kon ndox daje incha allah fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi di ñëw tombe weer wala fukki fan ak juróom-ñeent di tombe alxames di fa yéene taxaw bis bu tedd boobu di ñaan yàlla yegg ceeg jàmm di dem ak sëriñ di leen bàyyi sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amiin